El Hadji Momar Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame am nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi yow yaay secretaire général RTAS rassemblement des travailleurs africains Sénégal bokk itam ci benn bokk yaakaar alors euh, sëñ bi Samb ñu bëggoon am sa gis-gis ci dialogue politique bi waxtaan wi nga xam ne mu ngi wéy ñu am ay ponk yu ñu déggoo ak yeneen yoo xam ne itam déggoowuñu ci ñenn jàpp ne sax xëy na euh, ci lajj la ñu jëm est-ce que yow boobu gis-gis nga ci am. bu déggee. bu ma déggee ñuy wax lajj ci lajj la ñuy jëm damay damay wax ñuy wax xanaa xamuñu lu ñuy wax. Hmm. Euh, ma damay rafetlu euh, waxtaan wi xam ne di penco bu jëm ci yenn yu am solo ci réew mi ci wàllu politique boo bëggee ndek mbir nga saytu ko xam ndax fa ñuy yegg si lajj la wala du lajj da ngay laajte d'abord. lañ lañ doon wut lu tax ñu daje lan moo doon waxtaan wi yan ponk la yan lañ ci déggoo yan lañ ci déggoowul ndax àdduna ni mu tëddee du ñàkk déggoo ci benn wala ñaari ponk wala ñàkk déggoo tekkiwul lajj tekkiwul bon bon tekkiwul jàmmaarloo li am solo nag ma koy rafetlu mooy ñu daawul waxtaan ñu toog waxtaan loolu njariñ la te am na yaakaar ne lu ñëpp war a jàpp la ñaareel ba ñu toog juróom benn weer toog loolu di ko waxtaan di waxtaan di xamee di leerlu di gën a ràññee waxu ku ne ak ah taxawaayu ku ne ak ah gis-gis ku ne loolu déjà solo boobu li mu am rek macha allah ñun ñu dañ ko war a rafetlu waaye li am solo mooy ponk yi xam ne moom lañ doon waxtaanee mu jëm ci lan processus électoral bi maanaam nu ñuy doxal doxali mbirum élection yi ci réew mi ñaareel ba ñuy waxtaan ci euh, mbirum liberté yi démocratie bi sañ-sañu nit ñi sañ-sañu euh, citoyen yi ñetteel bi ñuy waxtaan ci institution yi nuñ ko war a joyante ci gis gisuñ ñi wala gis-gis ñale bu ci ne bañ ko gisee am na ay euh, déggoo yu bari xam nga déggoon nañ fi pour ne élection yi dañ koy toxal hmm. déggoon nañ fi ne audit fichier électoral bi ni mu doxewoon ni mu tëddee nañ ut ñu koy saytu ñu xoolaat ko ngir am ci lu wér hmm. nii élection yi doxewoon ci réew mi nag boobu ba léegi ñu xool bi ñu defaraatee euh, système électoral bi 2016 ba li xew 2019 ak la ci juddu lépp ñu xoolaat ko yooyu yëpp déggoo nañ ci mm-hmm. kon dama wax ne loolu déjà bu nit ay nit bu ñu daawul waxtaan déggoo ñu daawuñu gisee toog gisee ba déggoo ci loolu rafetlu moo war et dem nañ ba déggoo si sax ni ngi fale maire léegi ak président conseil départemental. Mm-hmm. loolu yëpp lu baax la lii ñu déggoo bari na mënuma ko lim yëpp. d'accord léegi léegi ñu wax ci ñu déggoowul lu ci mel ni par exemple. Euh, ministre de l'intérieur di organiser élection loolu. Euh, waaw ñi fare ci nguur gi ak opposition bi yëpp ku nekk xam na ci luy sa position opposition bi wóolootuñu Aly Ngouille Ndiaye depuis xëy na mu wax ne euh, moom dina fexe candidat am gagné bi ñuy waajal présidentielle bi est-ce que yaakaar nga ne foofu dinañ fa mën a déggoo ñoom ñaari parti yi. loolu du ñun bañu ñu ci opposition bi loolu aussi dañ ko doon xeex yaakaar ne li ñu teree gañe euh, mbir yi dafa am fu ñu jaarax ñun hmm. waaye euh, bi ñu ñëwee tamit ñu nekk opposition yi ne élection yi ni mu jaaree ñoo am nañ ci lu lënt seen xel lu seen xel tey kon Aly Ngouille Ndiaye li mu waxoon bés te loolu euh, di ko fàttali ci anam yoo xam ne kii ko doon laaj di taskatu xabaar ni yow leeraloon na mbir mi ne niñ ko waxee demewul ni ndax li mu tontu laaj bii la leneen li laaj bële la may wax ne loolu ku taxaw di ko wax sax fii dama yaakaar ni sa xel sax euh, dafa xaw a doy waar lu tax mm-hmm. bu fekkee da nga ne man damay sàcc new taw ci penc mi ne man sàcc laa damay sàcc kii laay sàccal mais xam nga kooku euh, ab dof rek moo ko mën a wax mm. donc loolu yënuwul maanaa loolu <laughs> ma yaakaar ne waxi politique la woon daal kuy wax daal kuy wax te Euh, nga xam ne nit ñi dañu am xel ni yow da ngay wax lu xelu loolu dafa xelwul sax waaye lii rawatina nag ba ka ko doon laaj wax dellu si ne mbir yi demewul noonu nii la demee waaye xam nga rek bu fekkee ne nit ki moom day utey lëndëmal xelu ñun ñi foog mu wékku ci loo xam ne ak dof rek moo ko mën a jàpp. Mhm. leneen li mooy bu fekkee ne da nga wax ne dama fàttali ne ñun 2007 élection yi na mu demee woon ba la Abdoulaye du jàll premier tour. ñu gis ci ay looxoor am luñ ci doyul ba ñu naa jinni sax ñëwaat parce que yaakaar nañu woon ne loolu mënta ne waaye am na ba mu amee tamit nanguwuñu ko ñu jóg mais jamono boobu dañu laajoon Abdoulaye Wade pour ñu waxtaanee mbir mi processus électoral bi malheureusement nangu ko loolu moo di suñu jafe-jafe ba amatuñu woon sax mën a toog ba waxtaan. Hmm. léegi nag bu ñu amee loolu ba mën a toog waxtaanee mbir mi ñàkkul buñ ca jógee dañu am leer lu boo xam ne nañu am fu ñu waaye dama bëgg wax na loolu du tey duguleet leneen li ngay wax nag euh, ñaareel bi ñàkk déggoo bi di mbiru euh, kii xam ne mooy président la république bañ a nekk chef de parti loolu woon lañu waxtaane woon nañ ko ci biir euh, assise nationale yi mm. waaye du lu ñu waxtaan woon yëpp ci biir assise nationale ba ñëpp nangu ko moo buroon ci ku ne ci ñun wala rawatina sax ñi xam ne ñooy APR te Macky Sall jiite leen président Macky Sall jiite leen te ñooñu sax bokkuñu woon ci waxtaan bu ñu doxaloon at ñuy toog di ko waxtaan di weccoo xalaat ci loo xamee ne ñu gisu musul gisee daawuñu waxtaan hmm. toog waxtaane loolu loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax waaye li am solo mooy ñu xam ne man day sama wàllu bopp ñun suñu parti loolu sax musuñ ci am gis-gis hmm. eh, boo xamee ne bu wér la ci ne loolu am na solo lu tax ndax kii xam ne mooy président la république ci régime présidentiel euh, li koy fal du moom jëmm boppam donc mhm. parti moo koy ngemb euh, euh, accompagner ko gunge ko taxawu ko sax laay wax du gunge rek parce que nit ki rek kenn mënul def yow rek li xam ne mooy campagne ba ñun ñi óolu la dafa am nu muy demee boo buñ la falee nag nga ne ñi ma àndaloon ñi xam ne ñoo tax ma gañe léegi damay beddee ko ci ñoom bàyyi leen ñu dem. loolu dama yaakaar ne xel daal mënu ko nangu ci ni régime bi du doxe d'accord waaye ñun assises yi la ñu laajoon en réalité xam nga lan la woon mooy régime parlementaire. Hmm. mooy régime boo xam ne du président la république mooy doxal politique gu réew mi premier ministre mooy doxal politique gu réew mi. Hmm. mu mel ni kon euh, déggoo boobu xam ne euh, ki yor exécutif yor gouvernement bi yor politique bi di ko doxal wuute na ak président la république. bu boobaa xëy na loolu mën nañ ko euh, xoolaat. mais pourtant dañuy faral di dégg ne euh, poñ boobu noonu président Macky Sall signé woon na ko ci assises yi waaye sous réserve maanaam euh, xëy na promettre loo ne dina ko doxal kon yëf yi demeewul noonu. xam nga bu ñu xoolee conclusion assises nationale yi. Hmm. ak document ba ca ba ca génn. ñëpp xaatim ko document boobu def xam ne boo xaatimee ànd nga ci li ci ne. Hmm. waaye ànd googu ñëpp bokk terewul ku ne ci ñun am na ci poñ bi wala poñ bële wala ponk bële loo xam ne loo ci totalement man mi wax a yow sox sunu parti. Mhm. poñ boobu wax dëgg yàlla ànduñ ci woon. mais boo nekkee di waxtaanee nit ba ñuy jàpp dangay dañuy seet rek fii ñi ëpp féete. Mhm. mais ma fàttali na président de la république moom ñoom mosuñu ànd ci loolu mosul ànd ci loolu. mais li ci gën a am solo nag ñi ñu xam ko mooy. man sama gis-gis bopp ak sama jàngatu bopp mhm. nga ñoom Macky Sall seen parti mhm. bokkuñu woon ci ñi doon waxtaan atub lëmm di saytu di gëstu di werante di xëccoo ba yegg fi ñu war a yegg amul woon li amoon mooy ñoom ba ñu paree waxtaan wi ci lañu ñu agsi mu mel ni kon weccante xalaat boobu amoon euh, mu dang mu dóor mu metti ba amoon ba am fu ñu féete ba ku nekk mën xam sa morom lu tax muy wax ak fu muy waxee. Mhm. loolu ñoom dunduñu ko. fekkewuñ ko dunduñu ko fekkewuñu kon sax décalage bi am. Mhm. day wër ci loolu ñoom am nañu décalage bu rëy par rapport aux conclusions des assises et par rapport aux assises. d'accord léegi li am solo. Mhm. mooy li ëpp solo ci ak di du ponk boobu vraiment vraiment man mooy xool dama naa lii amul njariñ biñ koy jox amu ko. wax naa la sànq waroo gi am entre un régime présidentiel à un régime parlementaire. Mhm. boo xam ne assises yi ñun foofu la ñu féete woon. te mhm. ñun foofu la ñu loolu ñu gëm ba léegi. or Macky Sall gëmul loolu. Mhm. gëmul régime parlementaire moom régime présidentiel la gëm waa APR ak ñeneen waaye ñoo bokk nag. ñàkk gëm googu wala ñàkk ànd ci tonk boobu tere li ñu bokk mooy lii baaxal réew mi. baaxal askan wi di niteel réew mi di niteel askan wi ñu ànd ci di ko liggéey. loolu moo ëpp solo. Mhm. donc loolu bëggoon naa ko ci wax pour leeral tonk boobu. d'accord mhm. léegi yow ci ci pàndawal waxtaan yi lan ngay xaar euh, ci tënk. li ma ci xaar mooy euh, ba ma rafet loolu am ba pare dama ne nañu fexe ba waxtaan wi ñu wéyal ko li ñu ànd ñu bokk jox ko président république mu dëggal ko wéral ko ci fexe ba mu doon sart aw yoon woo xam ne ci la ñëpp di tënku mhm. tey ak suba. ñaar li ñu déggoowul ñu xool nañu continuer waxtaan wi mais am naa sax mbégte sax ñoom ci seen waxtaan dem nañ ba déggoo ci ne war nañu waxtaan ci loo xam ne dina mën a saytu mhm. doxalinu démocratie ci réew mi di ko surveiller mhm. di ko réguler maanaam di fexe ba euh, bu amee tolof tolof wala ñàkk déggoo ñu mën ko saytu pencoo ci loolu mhm. ba mën ci génn taxawaay boo xam ne ñëpp lay jariñ lu tax loolu ndax réew mënuñu ko tabax ci fitna mënuñu ko tabax ci jaamarloo mënuñu ko tabax ci xeexante tojante bopp wala li xew suñu réew yi yi ñu wër wala li xew Mali nga def nag ñooñu talati nañu ay jàppal fii bàyyil fii ñu ngi ci leneen loolu ñun li ñu yàlla may dañ ko sàmm ci xam ne loolu ci loolu la ñu mën a tabaxee réew mi mhm. ci luy jariñ askan wi. léegi ñu wax ci wàllu bor bi Afrique euh, amee euh, ngeen taxawal euh, initiative pour l' de la dette africaine ci yan ponk ngeen nar a sukkandiku ba fexe dette boobu daal di teggeeku ci di Afrique rawatina ak Sénégal. waaw damay fàttali rek ne kuréel googu sumb mbir mi ñi ci bokk te loolu dama koy rafetlu ñu wuute pété la ñii opposition la ñu bokk ñii. Euh, euh, majorité présidentielle la ñu bokk ñii ay syndicaliste lañu ba ki ñuy jiite sax mooy Mody Guiro ñëpp xam ko ci taxawaayam ci syndicat ci réew mi jiite CNTS hmm. ak yeneen centrale syndicale yoo xam ne ñu ngi ci ak société civile yu ci ne ay euh, organisation faîtière ñoo xam ne ci wàllu mbay lañuy ñuy yëngatu wala napp wala ci ak xale yi jigéen ñi donc ak ndaw yeeg yooyu ñoom ñëpp ñu ci bokk ay artistes sax ñu ngi ci ku mel ni yu Ndour artiste bu mag bu mel ni Kalidou Kassé di def peinture ñooñu ñëpp ñu ngi ci biir ñu yëngatu nag ngir fexe ba bor boobu ñu gàll ci ndoddu Afrique di bor bu diis a diis nekk ceen goo xam ne mën naa wax ne day gàllankoor sax doxu Afrique ngir mu jëm kanam ngir mu yegg ci développement ndax nañ ko tëggee bor boobu. Mm. du mooy Afrique mu noyyi. ndax dafa mel ni bor boo xam ne. du dañ laa yow mi diin doo ko mën a fay ba jeexal ko mukk sa giiru kii womba giiru dund sax mm. mais parce que bor day day topp génération yi ñëw mm-hmm. loolu lañ ne bor boobu nañ ko teggi li tax ñuy wax ko sax mooy euh, nit ñi bu ñu tolloo ci jamono mbas moo xam ne li nga tal mooy wér euh, wér gu yaram euh, fexe ba aar sa njaboot fexe ba dundal leen fexe ba aar sa économie yëkkati ko parce que économie yëpp a nërmelu wàllu koom-koom bërëb yu liggéey yu bari tëj ñuy xalaat ñu ñuy dax ñuy xalaat ñoo xam ne dootuñu am fu ñu xëy mm-hmm. loolu buñ ci mënee waree boole nag di fay bor lu toll ci ay centaine de milliards yuy génn sa kees ngir for ay service de la dette xamu bor bi yëpp mm-hmm. waaye la bor ba jur loolu dama yaakaar ne képp kuy nit mm-hmm. te nite ci àdduna bi laa wax ni muy doxee war nga nangu ne loolu ñii dañ leen war a teggi lii te jublu ci leneen te bor boobu moom la ñuy wax bor publique bi te dama wax ne euh, bor boobu sax niñ ko tëggee dañ ko tëgg noo xamee ne bar boobu du jeex ba mukk damay fàttali ne deuxième guerre mondiale bi mu amee biñ ciy génnee mais ñu mel ni États-Unis ak ñeneen dañoo def plan Marshall pour yëkkati France jox xaalis bu rëy rëy sans condition ñu ay bor yoo xam ne ñu ay réew yoo xam ne yu mel ni Angleterre ñu far seen i bor bu mu jeex tàkk ñu dimbali leen pour ñu suqali seen koom suqali seenam réew waaw loolu tey lu tax duñ ko defal Afrique hmm. te Afrique lii mu liggéey ci àdduna bi ba àdduna bi toll fu mu toll suñu njaayam jaam biñ fi amaloon ak akimam réew colonisation bi fi amoon yooyu yëpp ak ni ñu jëlee suñuy doom ah, yi gën a euh, euh, suñuy ndaw yóbbu leen ñu xeexal waa Europe ngir génn leen ci njaa euh, ni nooteel gi ñu leen naroon teg mm. mais loolu yëpp kenn mënu ko fay kon adduna bi toll na foo xam ne dafa de war a delloo njukkal Afrique mm. delloo ko njukkal ngir mu mën a suqaliku ngir lii xam ne mooy soxlay doomam ñu mën ko faj te ñun far bor boobu liñ ci namm mooy li ñëwee mm. ñu saytu ko noo xam ne fu mu jëm mm. mooy luy tabax luy jëmal nit ñi kanam ca suuf mm-hmm. ñi amul ndox war a am ndox mm-hmm. ñi amul courant war a am courant ñi amul xëy ñu utal leen xëy ñi xam ne amuñu dispensaire ñi xam ne amuñu yoon loolu mooy suñu itte mm-hmm. mooy suñu gis-gis ca ñu bokk ànd ci ndek taaw lii ñu yaakaar ne moom bu ñu ko yëkkatee mu mën a antu mooy une mobilisation populaire mooy nit ñi fu ne ñu jóg ci Afrique muy Sénégal muy yeneen réew Afrique yëpp ñu ñu taxaw loolu ñu jooytu ko loolu ñu wax ko yëkkati seen baat addu ci mhm. ba ñi xam ne ñooy yor euh, adduna bi ci wàllu koom ñu mën a gis ne kat Afrique taxaw na askanu Afrique taxaw na te mënatul nangu ñuy wéyal bor bi xam ne daf leen di faagaagal. Mm-hmm. jërëjëf El Hadji Momar Samb ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte mu rëy ci dalal la ci waxtaan wi tey. jërëjëf bi fàttali ni yow yaay secrétaire général bu RTS bokk itam ci euh, seb bu benn bokk yaakaar jërëjëf Samb. jërëjëf.